suñu site bi la sunugal net comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne seen émission bi nga xamante ni mooy émission boo xam-xam di dox di wër borom xam-xam yi rawatina ki nga xamante ni moom la ñu seet si tey di docteur Cheikh Ousmane Mbow. Euh, moom dañu am mbégte tey di dalal suñu émission bi de moom nag gars yu bëri di ko laaj ndax waxtaan yaa xam-xam bu sell bi de euh, cheikh bi ñu bàyyi la rek nga nuyoog mbokk internet yi laata ñoo commencé laaj ak tontu yi. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Seydi Aliou maa ngi lay fay di nuyu waa Sunugal 24 yëpp di nuyu umma islam bi yëpp waaye di nuyu kilifa di nuyu nekk senegal yëpp ak kilifa aada yëpp ñaan yàlla jàmm yàlla ko yàlla saxal ci réew mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah amin jërëjëf euh, Cheikh bi ci yooyu euh, saa su ne Sénégal bu ci yenn situation yi yu mel ni dañuy faral di génn di wax mais dañu fi amoon ay jotaay yu bëri ñu waxtaan ci nga waxoon nag ci nguur gi. waxit ci gis na yëngu gën di confirmer mm. euh, waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla euh, waxoon nañ ne président moom ragalaluñ ko am nguur yomb ko. Mm-hmm. waaye mujj bu rafet ci nguur lañ ko ragalal. Mm-hmm. ci réewam ak ci bisim réew. Mm-hmm. ñu ngi koy continuer di ragal ba léegi ay ñoñam ñu ngi koy poussé ci loolu loolu nag ci biddoom la aju dafay laaj mu moytu bu baax xam mooy kan mën naa nekk buur nag ba dee mën naa ilif tamit ba dee waaye ci kaw euh, maanaam mën na ilif senegal ci ñaari mandat jóge fi dem ilif leneen leneen leneen waaye nag su bëggee élif Sénégal ci ay mandat yu bari bëri euh, ni mu betteewoon nit ñi ci falu mu neex lool ci moom neex lool ci ñi àndal euh, mujj ga mën naa am lu leen ca bett luñ ca foogatoon ci ay naqar ci ay déception ba tax na la ma ko doon digal rek laa koy digal bu topp ay jege ñaareem ndax boo nekkee buur yàlla dafay dogal ñi nga àndal nga wàcc arrange wu leen ndax ñu ngi seeni business yoo xam ne su euh, feeg ñu ngi nekk ci nguur gi business yi danañ ko mën a def waa léegi nag soo wàccee dafay beneen nguur mooy faluwaat te nguur googu faluwaat gis nga audit léegi dafa xew ñu bari ñoo xam ne feeñoo nañ ci nguuru Macky Sall feeñee ci wàllu alal ñu ngi xalaat seen bopp léegi nag ñooñu dañuy nekk sa wet toujours di la pousse pour nga jëlaat deuxième mandat fekk sax buñ la koy conseiller pour day day mel ni sa intérêt la yow fekk ñoom seen intérêt la moo maa ngi koy digal daal bu bàyyi xel loolu baax a baax. yow souvent ngay wax ci mën wax souvent nit léegi bi nga xamante ne ñu demee ko wër. Mm. Mm. Euh, ku mel ni euh, xare bi nga xamee ne actuellement lëmbe na dégg nga poli réew mi ci wàllu politique mm-hmm. euh, muy ku mel ni Sonko mm-hmm. moom biddiwam leer la. maanaam tey fi nekk nii bu fagaroo dëgg dëgg dëgg bu demee campagne mën naa am dara bu fagaroo dëgg dëgg mooy bu fexee am baatin dëgg bañ a yem ci zaahir bi rek parce que gaa yi ngi koy pexeel ci zaahir gaa yi ngi koy pexeel ci baatin bu rëccee seen pexe moom mën naa mën naa mën naa bett nit ñu ci lu bëri bari waaye ci kaw mu rëcc seen pexe actuellement ñi mu bokkal di xëccoo ñëpp nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi moo ci ëpp demin ci wàllu biddiw léegi nag su góor góorloo ñaar ñu ngi ci kanamam di ko xeex ñi ñi ñi bokk ak opposition bi soxla nguur gi comme moom ñu ngi koy xeex waaye tamit ki ci kanamam dégg nga xam ne moom mooy président bi ak ñooñam moom it seen falo moom arrangé ko ndax maa ngi lay wax léegi ci gannaaw audit yi demee noonu kon su ko defee bu góor góorgóorlu ci baatin dëgg mën naa bett ñu bëri macha allah. jotaay yombul. Mhm. am na suuf soo ñu doon faral di wax. Mhm. ndax adduna bi kat ku fi nekk bëgg nga muslu. Mhm. bëgg nga mucc te nga yit am dara. Euh, suuf soosee nga xamante ni daanaka li mu tële bëriwul. ndax mën nga ñu si dikkalaat si njëriñ la. waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne. sàkku leen seen wërsëg ci biir suuf si. Euh, alxuraan wax ne seen wërsëg mu ngi ci asamaan. yonent bi wax ne sàkku leen seen wërsëg ci sëy yonent bi wax saaba yi ne leen ku nekk ci yéen na ut métier mum ne di ci amee wërsëg man ci jihaad laay amee wërsëg damay rey nit jël alalam mooy ci jihaad boo jihaatee ba gañee yaay jël màng mi lu ñuy wax màng mooy seen fas yeeg seen matériel yeeg seen nàngam léegi nag su ko defee kon loolu li muy jàngale ci zaahir am na zaahir am na baatin zaahir bi mooy sàkku leen sa wërsëg ci biir suuf mooy Seydi Aliou seetal foo yaakaar ci biir suuf si ci réew yi wala ci dëkk yi wala ci marché yi foo xam ne boo fa demee liggéey fa yàlla dana la may wërsëg foofu nag benn xam-xam day taxaw xam-xam bi taxaw mooy euh, am na koo xam ne wërsëgam penku la ne dëkk bu ne am na penku am na koo xam ne wërsëgam xarfu la ne dëkk bu ne am na xarfu am na koo xam ne wërsëgam ndeyjoor la ne am na koo xam ne wërsëgam càmm la ne dégg léegi ne su ko defee. Eh, su fekkee ne sa wërsëg penku la ne nekk sa penku réew boo tukkee réew moo mën a dem boo demoon ci penku réew moom sax sa wërsëg du ubbeeku da sa penku la ne waaye sa penku réew la ne su fekkee ne nag sa wërsëg ci sa penku penku beneen réew la ne dégg nga maanaam nga nga nekk sa réew nekk ci sa penku sax penku réew sax du tax nga am wërsëg moo tax mag ñi boo daan tukki di dem di tukki dañ naa la wax dama réew sàngam boo demee foo mën a nekk ci réew ma na ngay fexe di ut liggéey ca penku ba dégg nga bu dee usine ngay liggéey na nga fexe nekk ci penku ba mag ñi daan nañ wax loolu am na koo xam ne wërsëgam penku la ne am na ko xam ne xarfu la ne am na koo xam ne ndeyjoor la am na koo xam ne càmmoñ la ne naka tamit réew yi dafa am réew yoo xam ne ci penku lañ ne comme tey màkk penku la ne am réew yoo xam ne ci xarfu lañ ne fii ñu ne senegal dégg nga ci xarfu lañ ne am réew yoo xam ne ci jënu fii am jënu yoo xam ne simaal maanaam ndeyjoor ak càmmoñ léegi nag loolu euh, su fekkee ne nit ki xam na mooy kan xam bidduwam am sëriñ dana ko wax ne ko yow barab sàngam maanaam masalan penku réewu arab yi asi yi dégg nga foofu la sa wërsëg ëpp ci réewu Europe yi léegi su fekkee ne xamoo nag sa wërsëg mën na ëpp ci réew Europe yi nga dem ci réewu dégg nga euh, réewu arab yi sa wërsëg mën na ëpp ci réewi arab nga dem ci réewi arab yi wala nga dem ba Amérique ba Australie wala nga sax ñëw Afrique léegi nag su fekkee ne nag yow tukki nga ba pare te xamoo sa wërsëg fu mu ne ku mel ni man soo ma ooyee dama wax ne dama su wërsëg bu nee foofu dama naa def sa wërsëg fu ne su fa newu dama naa ah boo demee réew sangam de côté sangam bu fekkee alal rek nga bëgg boo demee côté sangam da nga ko am aywa su fekkee ne nag mënoo dem ci côté boobu euh, solution bi mooy lan dañuy dindi gaaf gi dañuy tojtal gaaf gi gaaf ga nag suuf saa si gën a ay su ko defee ñu toccal gaaf gi foofu nga ne sa wërsëg mën faa ëlbatiku ñëw fa léegi nag loolu ci côté suuf gi suuf la ci wàllu zaahir léegi nag doomu bu ne du yàlla bindewu ci asamaan du yàlla bindewu la jaww ji du yàlla bindewu la suuf si bindee ci suuf si kon ci gàttal natiiru nit suuf la léegi nag su ko defee moo tax euh, doomu aadama bu nekk am na suuf boppam ndax fi nekk nii xam nga wax naa la suuf si jant du ko tiim weer du ko tiim bi maanaam suuf la soo xam ne jant tiimul ko fenkut ci kawam weer fenkut ci kawam léegi nag gis nga tey fi ne bu ma doon utal suuf si nekkut dégg nga damay dem ci suuf soo xam ne jant tiimu ko weer tiimu ko rek mais xam nga suuf si dafa am ay xeet ay suuf mu am yaa ngi dégg dégg nga am na suuf soo xam ne loo si ji mu sax am na suuf soo xam ne du sax am na suuf soo xam ne daa am yoo ci mën a ji am yoo yoo ci mënta ji waaye am na suuf soo xam ne sax moom mënoo si ji lu ko mel ni doj yi kenn mënta si ji kon su ko defee euh, nit ku nekk ak suufam ndax nit ñi fukki nit lañ ak ñaar tollook dégg nga fukki horoscope ak ñaar dégg nga nit ku nekk nag am na nit ñoo xam ne dégg nga maanaam am na nit ñoo xam ne euh, seen suuf dégg nga ci période lañ koy wut masala am na ñoo xam ne période sedd ngay wut seen suuf comme ni nga gisee wàllu garab. dégg nga am na garab yoo xam ne nawet la ñuy meññi am na garab yoo xam ne noor la ñuy meññi dégg nga léegi ñaari garab yooyu bokkuñ garab gi meññi noor boo jëlee xasam wala nga jël euh, meññitam ndax léegi xas mi boo ko defee sunguf man ko denc boo ko dencee ba noor dégg nga nawet lay meññi boo ko dencee ba noor bi di waaye jeex ndax dégg nga suuf sunguf soosu wala xas moomu dégg nga doos bi mu amoon dafay wàññeeku loolu il faut dañ koy xam ci wàllu garab noonu la xamee ci wàllu suuf it ni ku nekk ak suufam suuf bi nag boo xasee am tey masana léegi maa ngi lay tuddal euh, ku mel ni Sonko saaru kaaraange yooyu mooy kaaraange yi nga xam ne kaaraange total la nga xam ne buñ la yóbboo ci jalankat yi duñ la jàpp buñ la yóbboo ci ñu yor gala gi ñuul duñ la jàpp buñ la yóbboo buñ sacrifice xale wala ñu sacrifice nit duñ la jàpp

mën nañ ko wax askre mën nañ ko mën nañ ko tuddee askre mën nañ ko tuddee wan la bunt xam nga tey fi ne nii nit ki bu amee problème buntu fëgg du ubbeeku nga ne ko fëggal buntu sàngam fekk bunt boobu mu ngi ñu ngi doon xaar rek mu fëgg ñu ubbil ko day tudd na yow da nga ko accéléré wërsëgam dégg nga léegi nag euh, suuf si dañ ciy liggéey loolu benn dañ ciy liggéey wàllu relation waaye relation ñu am alal dañ ciy liggéey wàllu relation relation ay niti nguur léegi nag su ko defee nit ki su ñëwee nga ubbil ko ban buntu relation te relation yi nga koy ubbi du nekk relation kese kese mais day nekk relation yu ànd ak wërsëg relation yu ànd ak fatu da ngay taal biddiwam si ñooñu ba nga xam ne bu leen jubee lu mu soxla ñu def ko dañ lay wax ne diw de moom day xëcc wërsëg dafa yombal wërsëg masalan am na ku nekk Europe yàgg fa loolu am fa vingt ans wala trente ans ba léegi amu ko kër Sénégal wala sax lu yaasam da koy të wala sa dépasse am da koy të mu waxtaanee yow nga ne ko demal réew sàngam masala mu ngi France nga ne ko demal Italie mu dem Italie buntam ubbeeku danaan kii dafay xëcc wërsëg fekk da nga koo joxoñ buntam rek nit ki su duggee fi mu war dugg jaar fi war a jaar mbiram da yomb mais xam nga wërsëg comme yàlla waxul la fii la ne borom xam-xam rek moom yàlla xamal moo la mën a wax sa wërsëg fii la ne su ko defee bunt yooyu ñu lay jaarale daf lay dimbale pour sa wërsëg ubbeeku. bu dee sa biddiw dafa am gaaf tëju mu dimbale la gaaf gi dañ dégg nga su ko defee ñu ne diw dafay xëcc wërsëg dafay yombal wërsëg fan yii rek am na koo xam ne jigéenu Europe maako mu jigéen Europe matul weer mu mu jigéen Europe ñëpp si dafa xaru jigéen Europe waaye ci weer bi rek yàlla commencé na ubbi ay buntam te maa nekk sa wërsëg ne ko Europe te léeg-léeg nga wax ko ñu bëri ñu ne Europe mais duñ ñu am yaqin bi dafay dis ak ñoom. li ñuy mujj rek mooy ban solution rek léegi utal ma solution nan la defee ba ga dindi gaaf gi ma mën a ubbeeku nga defa ne loolu mais am na ñoo xam du ko jar dañuy ñib si te yàlla leen ubbi. ñu wax ci leneen xam naa sax fa la ñuy mujjee daanalee waxtaan bi. ndax euh, yow moom ak waxtaan ak yow mën naa jël wax yu bëri euh, kenn ci doyal waaye dafa am ñi nga xamante ni dañoo war a ànd ak ñi nga xamante ni waruñu ànd. Mhm. dañuy wax ci mbiru associé ak yu mel noonu. Mhm. ndax nit ku neex rek mën ngaa ànd ak la neex. associé moom mbir mu garaaw la euh, xam naa ne dañ ciy mos rek waaye loolu temu boppam la laaj ndax lu tax walla ay ay waxtaan parce que li ma doon gën a neex mooy euh, weer wi fan vingt vingt neuf jours la weeru olof walla trente jours te jour bu ne am na ñu ci associé te jour bu bu nekk ñi ci associé noonu am na seen associé bi am na fu ñu mujj. muy jour jour de associé ñaar mën nañu mën a ànd jour bu ñu associé yàq ànd bi masalan man ak yow mën nañu waxtaan ci benn affaire dëppoo ci pour liggéey si ñu ñu ñu dajee benn jour jour ba ñu associé lañ programme yëpp mu yàqu nu muy yàqoo mooy suñ da tàmbalee suñ liggéey maam yow yaay gañe waaye man du ma gañe kon man xam perte naa wala léegi suñ tàmbalee suñ liggéey bi bu ñuy départ rek kenn si ñun dana am gàllankooru kaso te loolu bu suuru associé bi rek moo ko def wala buñ tàmbali suñ liggéey bi du mar at kenn si ñun dana dee suuru associé bi moo ko def wala buñ tàmbalee suñ liggéey bi du mar ay weer ñu ñaar danañ xuloo ba xeex am ci associé bi moo ko def wala buñ tàmbalee suñ liggéey bi bu ñuy xëy suba rek uti nga sëriñ pour war ma pour yàq ma loolu associé bi moo ko def kon associé jour bi rek dana ko yàq léegi rawatina bés bi ndax nit ñi dafa am ñett ñetti mbir mu ne sa xarit day nit ki ñett ñett ñoo taxaw ci kanamam xaritam kës xarit boo xam ne xarit total la nature bi yëpp maanaam daf la bëgg carrément mbëggeel gi naturel la gisut ci àddina lu luy luy ëlbati mbëggeel boobu loolu mooy xarit total xarit kees xarit boobu yombul nit mën nga ñëw bëgg a jëflante nit mosu leen a xamee fekk nature am ak seen nature ay xarit dëgg lañ am na koo xam ne nag xaaju xarit la kooku intérêt bu taxawee rek dalay lay kooku il faut nga xam kan la ki nga associé kan la am na koo xam ne noonu la intérêt leen boole bu ngeen di ñëw pour associer sax yaa ngi koy lalan dëggu sarax wala mu ngi lay lalan dëggu sarax kon kooku da ko war a xam léegi nag su ko defee su fekkee ne loolu amul ñetti ñetti ñett xamoo xamoo ki ngay jëflante kan la ci ñetti yi nga seen associé bi mën naa am problème jour bi mën naa baax sax waaye ki ngay associé dégg nga du dem waaye nag ki nga associé lu baaxee jour bi baax. kenn mënta yàqu seen association bi te day dox. naa ne hmm. ponk la bu nga xam ne mën hmm. na associé ak nit. ba hmm. naka lay mën a def naka ñaar su fekkee ne xamul jour bi ñu associé dal bi xamu ko. daf lay jox tur daf may jox turam ak turu yaayam. jox ma turi kim mu associé ak turu yam ma xool ñoom ñaar seen nature yi ci ñett yi ma wax kii kan la ci kan la ci ñett yi ma wax su ma ko waxee kan la dégg nga pour mu mucc ci dafay yomb ndax dama ko gaaf yu taxaw ci kanamam wax ko biñ tàmbalee associé ba léegi kenn gàllankoor lañu am wax ko lan mu war a gàllankoor yi ko ci yoon ba mu dëñ. jërëjëf docteur ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp du ñaan yàlla Sénégal. Eh, ñu ngi fi ragal dénga yu bëree bëri lu mel ni wàllu dénga nga terroriste yi ñu ngi koy ragal Sénégal lu mel ni wàllu pétrole te pétrole moom fu mu jug rek wàllu terrorisme bi dafa yomb maa ngi ñaanal yàlla président bi yàlla may ko jàmm ak xiwal ak mucc eh, projet yi mu lal yëpp yàlla may ko mu yeggale ko balaay mandat bii di jeex ci barki yontu bi salaay di ma nag coona ñi nga xamane seen njaboot. dégg nga eh, dee nañ ci géej gi fan yi ñu ngi masawu coono ñi nga xam ne seen njaboot dee nañ ci di wax ne beneen yoon képp koo xam ne da ngay tukki te tàggu say waajur na nga tàggu sëriñ dégg nga ndax am am na yoo xam ne li koy waral rek mooy jóg bés ba wat a jóg wala ànd ak ñoo xam ne ànd ak ñoom dégg nga fin na du yem ci bopp borom comme ñooñ dañu war a am gàllankoor rek. nga am gàllankoor kon yàlla maa ngi leen di jaale di ñaan yàlla yal na yàlla xare ajjana xare leen ajjana waaye tamit seen waajur yal na yàlla utu leen ci ñooñu dégg nga ba nga xam ne lépp lu ñu leen yéenoon ko defal leen ko yal na yàlla defal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.